jàngoon nañ démb ci laay yi ibnu kathir nee na waqat wax nañ ala kulli mawdiin ci bépp barab min haadihi ci barab yi fi tafsir yi ca firma mu ne ba ñuy firi alquran leeral nañ aaye yëpp wala naskuru danañu tudd madmunal qisati lu qisa bi lamboo majmuwa di luñ dajale min haadil amaakini barab al yu taqalikoo min ma ki nga xam ne dala naa lay ci moom ahadisu hadisi jeex asar yi asar nag buñ ko waxee mooy lu jugee wut ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme lu jugee ci saxaaba yeeg yooyu nee na histoire yonent yàlla Nuux lam làmboo danañ ko leeral dégg nga jëlee ko nag ci aay ak xadis yu taqalikoo yi rek waqat jara daw na zikro tudd ay ren ba tey fi mawaadin ci ay barab mutafariqa yu taqalikoo min alquraanin ci alquran fiyaa nekk na si madaxu tagg nuuxu wa zammu man xaalafu ak ngàññi ka wuteeg moom alquran tudd na histoire nuuxu ci ay barab yu tàqalikoo tagg fa yonent yàlla nuuxu ngàññ fa ko wuteeg moom fa qaala wax na taala yàlla mu kaw mi fi suratu nisa <clears throat> ci saaru nisa suratu nisa yàlla ngi wax naan innaa naka ñun awaxaynaa wax yu nañ ilayka jëm ci yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam kama awaxaynaa comme ñu ilaa nuuxin jëm nuuxu wa nabi naag yonent yi min baari gannaaw ga waaw xëy naa ak comme ni ñu wax yoo ilaa Ibrahima jëm ci Ibrahima wa Ismaila Ismaila wa Isaqa Isaqa mooy doomu <coughs> waaw Ibrahima ñoom ñaar ñaar doomu Ibrahima dañu dee wa Yaquba doomu Isaqa la wa Asbaata ak Sadiya waaw muy doomu Sadiya waaw doomu Yaqub yére doomu Yaqub wax yoo ci Isa wa Yuba Yuba Yunusa Yunusa wa Haruna ak Haruna wa suleymaan ak suleymaana waatee naa jox nañ daawuda daawuda mi nga xam ne mooy bàyyi suleymaan zabuuran téere boobu ñu di wax zabuur de <coughs> dégg nga jox nañ daawuda zabuur wa rusulan ak yonent yoo xam ne waaw yónni nañ ay yonent yoo xam ne kat xasas naahum nett na seen histoire alayka ci yow min lu njëkk de wa rusulan ak ti yoo xam ne lam naqsusum nett wuñ ko alayka ci yow waaw yàlla am na juróom-ñetti junne yonent yoo xam ne ñeenti junne yi ci banu Israel lañ bokk yeneen ñeenti junne yi bokk ci nit ñëpp rek la wax de wakkal ma waxee naa laa yàlla Moussa Moussa wax joo xam ne dara doxut ci diggante bi taklima waxee de yàlla wax naa Moussa wax joo xam ne dara doxut ci diggante ba foofu yàlla tudd na fa yonent yàlla Nuux rek de ne yàlla wax yu na ko waaw waqaal wax na fi tuuti anaam si la naam sootul anam yàlla tudd na fa histoire yonent yàlla nu di lay nag yéen tuddoon démb moo di gën a fës buur wa tilka loolu hujjatuna suñuy lay la yooyu suñuy lay la dégg naa jox nañ ko Ibrahima Ibrahima ra xaw mi ci nar fa ma danañ yëkkati darajaati man darajaati narfon danañ yëkkatil darajaati ay daraja man nashaaw ku ñuy soob dégg nga inna rabbaka naka sa borom hakimun aji xereñ la mu ci jëfam alimun aji xam la mooy mi defam de waab naa may nañ loo ñeel ko isaaqa isaaqa wa yaquba yaquba kullan ñoom ñoom ñaar ñëpp haday naa jubal nañ leen wa nuuhan ak nuux haday naa jubal nañ ko min qablu njëkk ibrahima wa min zuriyati bokk na si njabootam moom nuux daawuda daawuda wa suleymaan ak suleymaan doomam wa doomi daawuda wa ayuba ak ayuba wa yusuf ak yusufa doomi yaquba <coughs> musa ak musa wa haruna ak haruna wa kazalika comme ni ñu fayee ñu baax ñi najzi nañu fayee nag al muus ni nañu fa ñere wa zakariya ak zakariya wa yaxya ak yaxya doomi zakariya wa insa ak insa doomu mariama dégg nga lii mooy wane ne bu doom bu jigéen bu jigéen waaw <coughs> ci doom bu waaw jigéen waaw dégg nga doom rek la suru toon loolu ne saa du bokk ci sadi de wa ak Ilyaas dégg waaw mm, doom eh, doomi Haarun la mbokkam Musa kullu ñoom ñëpp mina saalihina ñu ngi bokk ci way baaxe rek laa wax de wa Ismaayila ak Ismaayila doomu Ibrahima waaw wal Luutan ak Luut waaw dégg mm, di doomi Haaraan mbokkam Ibrahima doomu Haran la mbokkam Ibrahima dégg nga loolu la wax de waaw <coughs> moom Lóot waaw wa kullan ñoom ñëpp fadal naa gënal nañ leen mi aalamiina ci mbindeef yi de waaw ñoom ñëpp def nañ leen ñu ñu ñu bokk ñu gën ci mbindeef fi wa min aabaa'ihim ak seen i baay wa zurriyyaatihim ak seen njaboot wa ixwaanihim ak seen i mbokk yàlla tan na ci de waaw dégg nga dégg nga wajtabainaahum tànn nañ leen. وهديناهم jubal nañu ila siraatin jëm ci mustaqimin baay jub de yàlla tànn seen i baay ak seen i njaboot ak seeni i mbokk ndax ñenn ñi ci ñoom xéeféer lañ waaye ñenn ñi ña nga des ci julit gi de yalla yàlla tànn leen jubal leen ci yoon wu rek de foofu yàlla tudd na fa yonent yàlla nu wane fi ne waaw ñu bëri ci yonent yi njabootam lañ bok waqad taqadama jiitu na qissatuhu iswaaram moom noo fi araaf ci araaf wa qaala wax fi suurati baraa isaaru baraa moom borom bi subhanahu wa taala jàngal na histoire nu ci saaru baraa rek laa wax de su ko defee mu ne alam yaatiim mën a dikkalu leen nabu lazina xibaaru ña nga xam ne min qablihim dégg nga njëkk na leen ndax xibaaru ñu jiitu dikkalu leen te mooy xawmi nuhu nitu nuuy de waadin ak aat mooy nitu huud yi wa samuud ak samuud te mooy nitu saalixi wa xawma ibrahima ak nit si ibrahima wa asaabu madiana ak ñooñ madiana te mooy nitu Shuayb yi wal mutafikaat ak dëkk ñooñ luut de waa dégg nga waa ak ñi dëkke woon ci dëkk ñooñ luut atarhum dikkal ne leen rusulum yonent yi bil baynaati ci kawtee fii leer naññi ñu daal di weddi de ba ñu wedde yàlla xarak leen fa maa kaana nekkul laaw yàlla leer di moom di leen waa ji tooñ de yàlla tooñul leen ci mbugal gëm leen buggal waa ndax dañoo def bàkkaar suñ defutoon bàkkaar yàlla du leen mbugal du leen xarak walakin li fi nekk kaanu nekkoon nañ ñoom yazlimoon di tooñ anfusum seen i bopp ñoom ñoo tooñ seen bopp de kooku kooku yàlla jàngal na ko de muy histoire <clears throat> nu di la gàtt na lool waaye tudd na ko foofu wane ne xarak na aw nit yooyu nga xam ne ñoo ko wedde woon wat taqaddamat jiitu na xissatuhu histoire am dégg nga fii surati Huud ci saaru fii surati fii Yunus Yunus wa Huud ak Huud loolu jàngoon nañ ko démb wa qaala wax na fi suuri ibrahima saaw ibrahima ne alam yaatikum manax dikkalu leen na boobu lazina xibaar ñi nga xam ne min qablikum ñoo leen njëkkoon xaw mi nuuhin te mooy nis nuu waa jëna gaanaat te mooy nitu Huud yi wa Samuud ak Samuud te mooy nitu Saaliix yi wala si nag ñi nga xam ne min baalim ñoo ñu gannaaw ga laa yàlla moom xamul leen illa laa lu ma yàlla ndax bëri giñ bëri jaatum indi na leen uslum yonent bil baynaati ci kaw te fi aji leer naññi yi wane ne ñoom wax nañ dëgg yàllaa leen yónni faraddu ñu daal di delloo ñoom xeet yooyu ay di yoom seen i loxo fi afwaayam seen i gémmiñ ngir matt seen i loxo ngir rek mer maanaam yonent yi dañ leen woo jëmee ci yàlla ni leen kaw te ñu mënul dara ñu ngay matt seen loxo ya ngir mer waaw bañ a topp yonent yi wa ñu daal di wax ne innaa naka ñun kafar naa wedd nañ bi maa usiltum ci lañ leen yónni bii ci moom wa innaa naka ñun la fi shakkin waaw ñu ngi ci ab sikk min maa ta doon naa ci li ngi ñu xoo ilay jëm ci moom muribin bu bu bu bu bu bu lënt rek laa wax de muribin baa ji sikkaloo rek baa ji lënt rek laa wax de maanaam baa ji dugal ci sikk ñu ngi ci sikk ci lañ ñuy xoo sikk googu daal sikk rek la ñuy yokk ñun gëmuñ li ngeen wax de wedd nañ waaw foofu yàlla tudd na fi ci yàlla noonu waa ñu tamit daal di daal di ko weddi rek laa wax de waqaala wax na fi sóori subhaana sar subhaana na zuriyata man amal naa njabootu ñi nga xam ne xenu nañ leen ci gàddu nañ leen ci géej ga maanu ñu ànd ak nu innoo nag nu kaane nekkoon na abdan di jaam shakuran bàyyi sant yàlla kooku yàlla tag na ko foofu waaw <laughs> loolu sóoru subhaana de waaw waqaala wax na fiyaa ci mooy den ba tey wakkama halak naa ñaata yoon lañ halak min alquruni ci maas min baadi nuuhin gannaaw nu wakkafa doy na bi rabbika sa bi zunu xabiran kaa ji dañ kumpo basiran bi aji gis bi zunu baadi ci bakkaari jaamam yi de foofu yàlla tudd na ko fa ne xalak nañ ay xeet yu bëri gannaaw nu yàlla xam na bakaar yi xam ñu war a xalak waqad taqaddama jiitu na qisatu histoire fil anbiya suratul anbiya wal mu'minina ak suratul mu'minina wa shu'ara ak suratul shu'ara wal ankabut ak ankabut yooyu yëpp yàlla jàngal na fi histoire nu waaw waqaala wax na fi suratul ahzab ci saarul ahzaab ne way taxas naa bañ jëlee a na bine ci yonent yi bañ fase men na bine ci yonent yi mii taaxum seen kóllëre yàlla fasante naa kóllëre yi yonent yi wa min kaak ci yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa min nuuhin sab nu mariama ay saab nu xas naa ñu jël minut ñoom mi taaqan kóllëre xalidan daa ji dëgër rek laa wax de yàlla fasante nag yonent yi kóllëre gu dëgër kooku soo da ahzaab la wa qaala wax na fi suurati saat ci saaru saat saat wal quran eh, eh, yàlla di zikri yàlla wax na fa nekk sabar wedd na xablahum njëkk leen waaw xawmu nuuhin njëkk noo waaw njëkk ñii di weddi nitu nuuhi de waadun ak aat wa firawna ak firawna zul awtaari kay borom daaj ya nee nañ ay <coughs> waaw daaj yu sampoon kum mere rek sampal la ñeenti daaj ñeenti bant tànk tàkk sa tànk yi ak sa loxo yi di leen mbugal noonu la doon def moom firaw na de ñu tuddee ko waram daaja wa samuud ak samuud wa xawmu luutin ak nitu luut ya waa sabu raykat ak te mooy nitu soxna bu rek laa wax de wulaay ko ñooñu kay alax daa bu ñoori kuréel yi nga xam ne waaw xandoon nañ ngi weddi yonent yonent ya waaye mënuñ ci dara xalkaan rek ci lañ mujj kon yéen xëy màkk yi nga xam ne ni yéen nga xam ne pour weddi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xalkaan rek ci ngeen mujj leen in kullun déet ker képp ci kuréel yooyu illaa kasaba lu may wedd na arusula yonent ya fa xaqamu daal war ñeex leen waaye di waaw dégg nga iqaabi sama mbugal de mbugal daal di war waaw daal di ñeex leen su kooku saar la rek <laughs> waxaale wax na fi suratul xaafiri fi saaru xaafiri waaw suratul <clears throat> xaafiri yàlla wax na fa ne waaw kasaba wedd na qablum njëkk leen xawmu nitu nuuy nitu nuuy ñoom waaw wedd nañ rek laa wax de wal ahzaab ak kuréel yi min baadi min baadin seen gannaaw waaw waaw dégg nga njëkk nitu nuuhi wedd nañ njëkk ñi leen di weddi ak kuréel yi ca gannaaw kuréel yi mooy aad ak samud ak mboolem ñooñu nga xam ne weddi woon nañ seen yonantu de waaw waxamali toon na kullu ummatin bépp xeet bi rasulim seen yonantu tu yàqsu pour ñu jàpp ko rey ko xeet wu xeet wu yàlla yónni yonantu rek la ñu hitoo mooy jël ko rek daal di ko rey wa jaadalu ñu dagg santeeg moom bil baatili ci ay caaxaan ñi ngay xulug yonent ba nag di wax ay caaxaan lii di xidu ngir ñu yóbbee <coughs> bii ci caaxaan googu alxaq dëgg de maanaam ngir ñu toxal ngir ñu faagaagal bii ci caaxaan googu alxaq dëgg waaw ba léegi looloo fi nekk nit ñi dañuy werante rek waaw di waxi caaxaan ak nen neen ngir dindi waaw la nga xam ne wul yàlla yi samp nañ ko tam dëppoog njubam yonent yàlla muhammad sallallahu wa sallam de wali yàlla may ñu jënam yonent bi saa nekk ñoo gën a xam njubam yonent bi waaye nit ñaa ngi ay caaxaan rek waaw di dagg santek ñoom ngir jëlee leen fi waaw yonent yi noonu lañu fi nekkee woon ñu ngay dagg santek ñoom di indi ay caaxaan ngir yóbbu ko dëgg faaxastum ma jàpp leen ci mbugal fa kay fa kaana naka la nekkee xaabi sama mbugal ñeexal leen de mbugalam yàlla kay lu tat la dégg waaw wa kazalika naka noonu xaqat ci la waree kalimatu rabbika sa baata borom boobu waxoon ne laam laana jahannama dana fee dana ma feesal jahannama yàlla waxoon ne dana ma feesal jahannama ci jinne ak ay nit yàlla loo feesal jahannama googu nag war na yee na xalal lazina ci ñi nga xam ne kafaro weddi nañ an annahum ne ñoom asaabu naar ñoo ñoo di ñoom safar de war na ci baatab yàlla boobu waaw war na ci xeefeer yi ndax ñoom ñoo ñoon safara xeefeer yi safara rek nañ jëm yàlla incha allah musal waxaala wax na moom yàlla fi surati suura ci saaru shura ne shara yoonal na lakum ñe leen mina diine ci diine maa wasala dénk na bii ci moom nu waxan nu wala jeeg li nga xam ne waxee naa wax yu nañ koy lekk jëm ci yow waaw wa maa wasee naag lañ dénk bii ci moom ibrahima ibrahima wa moussa ak moussa wa insa insa dégg nga lañ dénk lañ dénkoon noo waxyu ko yonent bi dénk ko Ibrahima Moussa Insa mooy lii an aqimu na ngeen jubal diina diina ci wéetal yàlla wala tatafaraqu bu leen teqalikoo fii ci diina ji léegi nag loolu dal nañu ko ci diina mooy ki jaar gauche kii jaar droite <coughs> ku nekk noonu sa morom loolu bu leen ko def de te bu leen ko it ci pas-pas yi waaw na yéen ñëpp na ngeen bokk li nga xam ne nii mënul ñàkk ngeen bokk ko fas mooy yàlla kenn la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom yàlla yónni ci ñëpp moo gën ci xeet xibla mm, waaw ponk dini na ngeen ci bennoo seen xol bu leen ci wutee su ko defee it bu mu leen taxaw noonu rek de bu leen teqalikoo ci biir diine loolu la yàlla dénk yonent yëpp dénk ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kabura jafe na alal mushrikina ci xeefeer yi maanaam nga xamante ne moom da nga leen xooy yéey jëm si moom allah yàlla yeccabi dana tànn yéey jëm si moom mu ne saaw ku ko soob wa yahdi dana jubal yéey jëm si moom mu ne nii bu ko dellu ci yàlla de foofu ñaar la fa yàlla tudd waaw ak inaabatu yàlla mooy xool ku ko neex rek mu tànn ko kooku moom may ga ko yàlla may du lu ñuy fàggu waaw du lu ñuy jéem yàllaa koy may ku ko neex ak inaabatu nag moom ku dellu ci yàlla rek yàlla jubal la ku góorgóorlu dellu ci yàlla yàlla jubal la kon nit ñaar lañ murid ak muraad murid mooy koo xam ne dafay lu ba dellu ci yàlla yàlla jubal ko muraad nag mooy koo xam ne yàllaa ko bëggal ba moom daal di ko jubal yoonu kenn nekkut ci yàlla ñu ko yàlla defal rek laa wax de waxaala woon na fi suuri xaaf foofu yàlla wax na fa rek laa wax de <coughs> nekk sabar weddina xabla mum njëkk leen xawmu nit nu nit nuuy ñoo njëkk weddi waa saabu rasi ak ñooñ teen ba teen la goo xam ne nii waaw <coughs> dañ fa daan waaw eh, eh, root di nandal seeni jur yi di di fa jaamu xiram dégg nga waaw seen yonentu bu yàlla yónnoon ci nag nee mooy Hanzalatu ibnu Safwaan wax nañ keneen waaye wax nañ ne Hanzalatu ibnu Safwaan moo doon seen seenam yonantu ñooñu weddi nañ an zala moomu wa samuuda ak samuuda nitu saalix yi weddi nañ wa aduna ak aad mooy nitu huur yi weddi nañ wa firawna ak firawna weex waan luuti ak mbokk luuti weddi nañ wa asaabu aykat ak ñooñ gott ba mooy nitu Shuayb yi weddi nañ wa xawmu tubaa ak nitu tubaa yi tubaa buur la woon bu nekkoon ci Yaman dafa jébbalu daal di xaw aw nitam ci islaam ñu daal di ko weddi rek daal di bañ kullu ñoom ñëpp kasaba wedd nañ rusula yonent ya waaw ni waa Quraysh nuñ weddee de fa xaqa war na waaye di sama tëkku rek ci ñoom rek laa wax rek yàlla incha allah musal waxaala wax na fi zaariyaat si zaariyaat wa qawma noohi nit noohi dégg nga wedd nañ min qablu bu njëkkoon innoom naka ñoom kaanoo nekkoon nañ xawman daaw nit faasixina di yu kàccoor de nit noohi wedd nañ ay nit yu kàccoor lañ xoon dégg nga waqaala wax na fi nañ mi suratu nañ mi wa qawmu nuuhin ak ñu nuwo min qabli bu njëkkoon inam na ko ñoom kaanoo nekkoon nañ hum ñoom azlama di dàqatooñ waat xaa di gën a bew nitu aad yeeg firawna yi nitu nuux yi leen dàqatooñ ñoo gën a bew ndax nu sax na fa junneat yu manque juróom fukk te taxul ñu gëm yàgg gëm fa yàgg gëmuñ moo wax ne ñoo ñoo dàqatooñ ñëpp waa yàlla tudd na leen ci ay barab ci alquran wa taqaddamat jiitu nam xisatoo histoire am fi suratu iqtarabati saatu si saaru iqtarabati saatu jàngoon nañ histoire yonent yàlla noo foofu waaw saaru iqtaraba di saatu jàngoon nañ fay suwaaru yonent yàlla noo waxaat na ne <coughs> waxaala wax na taala yàlla ma koy fi sóoti xadit saaru xadit wala xadaar san laa yónni nañ a nuu wa ibrahima ak ibrahima wa jaal naa def nañ fi sóoti ma seen njaboot ak nubuwatu yonent wal kitaaba ak téere fa minum am na ñoom muxtadin ñu jub wa kasiiru ñu bëri minum ci ñoom faasiquuna ay kàccoor lañ ñu bëri ay kàccoor lañ yàlla nañ si suuratu xadiid waqaal wana taala yàlla mu kam fi suuratu taxrim ci saaru taxrim daraba saddna laa yàlla masalan misaal lilladina ñeel gaañ nga xam ne kafaro weddi nañ imraatu nuuhin soxnaay nuux imraatu luutin ak soxnaay luut kaanataa nekkoon na ñoom ñaar taxta abdayni ci roon ñaari jaam mine baat naa suñuy jaam saalihin yu baax fa xaanataahumaa tañu xor leen yonent yàlla ak yonent yàlla luut ñoom ñu baax lañu woon ay yonent lañu woon seeni jabar nag yàlla leen rek ñu bon lool daal di xor seen seen jëkkër waaw <coughs> dégg nga nga kon na ngeen jànge jànge ci ñun de na nekk soxnaay nit ku baax taxul rek nga jàpp ne yow jeex na boo góorgóorlu rek xal ko jabaru nu nee nañ nam tuddoon mooy waaxilatu daf daan wax ni tamit ren kii dafa dof rek moo tax mu leen wax li leen wax ni waaye du dara dafa ko jàpp maa jabaram xam nga soxna bu ne borom këram dafa dof nit ñi yàggee ñu gëm ko buy buy wax lu kenn xamut su ko defee nag noonu la doon xoree yonent yàlla nuu de waaw luut soxna mooy waaxila kii waaxila kii waaxila kii xaala kii ayn soxnaay luut ayn la soxna nuu nag xaala hal kubeer waaxila moom moo daan soxnaay luut yonent yàlla luut aw nitam dañoo bonoon bon ba di sëy ak góor di ref góor jigéen bu luut amee gan rek ñu daal di ñëw song ganee sëy ak moom xam nga ne loolu gàcc dëgg la su ko defee soxnaa yonent yàlla luut nag moo daan def rek bu gan yi ñëwee mu taal safara bu taalee safara nit ñi gis saxar sa rek xam ne luut am nay gan ñu daal di ñëw daanu seen kaw kooku xor na jëkkëram de ñoom la yàlla wax nag ne bañ xoree falam yuxni yaa jëriñuñ leen ñoom ñaar nu ak luutu jëriñun anuma si ñaari jigéen yooyu mi ne laay ci mbugalam yàlla seen dara nekk gi nekk jabaru yonent yooyu taxul mm, yàlla bañ leen a mbugal waaw waqiila wax nañ ñeel la ñoom ñaar na leen uduxulaa dugg leen annaara safara maa daqilin ànd ak way dugg yéde jabar yonent yàlla luut ak nu dañ leen wax ne dugg leen safara ànd ak waaw mboolem ñu dugg safara ci nitu nuuy ak nitu luut yi parce que yéen baaxu leen woon rek laa wax de <coughs> <coughs> baaju baax taxut doom baax dégg nga waaye jëkkër ju baax it taxut soxna baax rek de baax moom lu ñuy fàggu la boo góorgóoral rek yàlla may la ko waa mamat munu ma jaraa waaye la nga xam ne lamboo na ko waa mamat munu waaye la nga xam ne lamboo na ko maa jaraa la daw na loo ñeel ko maa xaw mi ànd ak nitam ma xuusan ñu jëlee ko mu ne ci alquran wa sunnati ak sunna wal asaar rek ña maanaam histoire nu nim nim boo jàppee ci alquran ak sunna ak waxi mag ña mooy nii faqat xadam naa jiital nañ an ibnu abbas jëlee ci ibnu abbas annoo ne moom li am ba am kaana nekkoon na benn aadama diggante aadama wa nu ak nu qurunin fukki maas kulluhum ñoom ñëpp al islaam yi julit lañ <clears throat> ñu ngi ci lislaam moo tax yonent yëpp lislaam ci lañ nekkoon <clears throat> amul ku nekkoon ci lu dul lislaam rawaaw net na ko al buxaari imaam buxaari wa zakarnaa tuddoon nañ foofu anal muraad ne lañ namu bil xarni ci maas jii moo di aw nit awil muddat wala ab diir ala ma salafa waaw ca la passé maanaam aw diir aw ab diir la woon bu dee aw diir la diir bi mën na téeméeri at lay doon ndax maas gu nekk téeméeri la wala aw maas su boobaa maas gi moom mooy aw rek bañ jeex mën naa ëpp sax téeméeri ñu ne woon kon diggante bi junni at la ndax fukki maas waaw maas gu nekk téeméeri at junni la wala diggante bi mën naa ëpp junni at aw nit la de waaw loolu jàngoon nañ ko suma ma baax la tilkal quruni saaliha gannaaw yooyee maas yu baax xadasat xew na umurun ay mbir ixtirar yoo xam ne waral na an aala ba mu dellu alxaalu mbir mi bi ahli zalika zaman si ñoom boobule jamono ilaa abatati aw saani si jaamu asnaami si jaamu xiram gannaaw maas yooyu nag yàlla dogal mbir yi changé ba nit ñi commencé jaamu xiram bañ commencé jaamu xiram nag mm. ci la yàlla nuux de jaamu xelam gi nag mën ngaa jàpp na ci jamono bi yonent yàlla nu juddoo ci la commencé su ko defee yàlla yónni ko waaw su boobaa du dàqanteeg wax ji nga wax ci gannaaw ne diggante noohu ak aadama fukki maas ci nekk yoo xam ne ñëpp ci lislaam la nekk wala nga ne jaamu xelam nga njëkk yonent yàlla nu alayhi salaam di judd la su dee njëkk yonent yàlla nu di judd la nag kon wax jëñ waxoon ne diggante yonent yàlla nu ak aadama fukki maas yu dox ñoom ñëpp ci lislaam la te kuul ne fukki yooyu rek la am na yeneen maas yoo xam ne gëmuñ ndax ñii di jaamu xiram moom njëkk nuu moom gëmuñ tali leer ba leer mooy jaamu xiram googu nag moo tax yàlla yónent yenu yónent yàlla nuu li mu niru nag mooy dañoon jaamu xiram yàlla indi nuuxu daal di ko yónni ci ñoom kon su boobaa fukki maas yooyu lañ ci nam mooy fukki maas lañ yoo xam ne ñoom ñëpp ay jullit lañ waaye dàqwante nag am na yeneen maas yoo xam ne dox nañ ci diggante bi te gëmuñ wakaana nekkoon na sababu zaalika la waral loolu la waral ñu doon jaamu xiram mooy maara waaw la nettali na ko Buxaari Buxaari min hadis ibnu Jureji ci hadis ibnu Jureji an Ataa jëlee ko ci Ataa ibnu Abbas jëlee ko ci ibnu Abbas xëy tafsir yi ci firi wax yàlla xëy tafsir qawli taala ca ba muy firi wax yàlla ji kawe jum naan wa qaalo wax nañ ne laa tasurunna bu leen bàyyi ayaatukum seen yàlla yi wala tasurun na bu leen bàyyi waddan wadd wala suwa du caageen suwa wala yaxuusa du caageen yaxuusa wa yaxuqa yaxuqa wa nasra nasru xevéeri màkke waaw dégg nga yàlla jox neen misaal euh, saa su nekk waaye taxul ñu gindeeku ba léegi it yi war nañ cee jariñu ñun den dem abu ci ñun moom war nañ cee jariñu waaw dégg nga xevéeri dañoo waxoon ne seeni xërëm yi nit yonent yàlla nuux yi bu leen bàyyi xërëm bu leen bàyyi wadd ak suwaa ak yaxuus na ngeen leen jaamu bu leen topp nuuhu nuuhu ku sonn la xaala mu ne haasi lii asmaau rijaal ay turu góor lañ saalihin yu baax min xawmi nuuhu ci nitu nuuhu ibnu abbas ne wadd ak suwaa ak yaxuus nasra ay nit ñu baax la ñoo ni doon jaamu yàlla bokkoon ci nitu nu yonent yàlla nuuhi alayhi salaam falamaa bañ xal koo ñu dee aw haa waxyuna seytaanu seytaane ilaa qawmihim seeni nit anin sibu na samp leen ilaa majaalisim seen jotaay alati yi nga xam ne kaanoo nekkoon nañ yelli suna di toog fiyaa ci moom an saaban ay xiram wasamu haa tuddee leen bi asmaayim seeni tur fa faalu ñu def ko de faram tombar waaye jaamuwuñ ko ba nga xamee ne wadd ak soo ak yaxuus ak yaxuq ak nasru dee nañ génn nañ àdduna waaw yàlla dafa waxyu waxyu Eh, déedéet seytaane dafa wax yu nit ñu yonent yàlla nuuxi na leen ma defal leen leen ay xërëm yu mel ni nit ñi ngeen leen di fàttalikoo ngir ngeen gën a sawar si yaamu yàlla di leen wéttalikoo ñu ne waaw mu defar nataal xërëm yoo xam ne boo leen xoolee da fa mel ni benn bi wadd la benn bi sawa benn bi yaxuusa benn gi yawq benn bi nas nasr wuteewuñ dara ñu di ko xool nag di ko fàttalikoo seen mbokk yooyu génn àdduna de waaye jaamuwuñ ko nag xataa isa xalaka ba mu dee ulaayika mbooloo moomu wanu si xañi folleeleel mu xam-xam mu bi dal ci dañ ko jaamu nit ñooñu bañ demee ba dee xam-xam jugee fi nag ñi xamul dara ñëw gis xërëm yi rek seytaane wax yu leen ne seen bàyyi dañ doon jaamu ñii ci ñii lañ doon ñaan taw buñ taw téye am ñii lañ doon jaamu jaamu leen leen ñu commencé jaamu xërëm de moo tax ñu <clears throat> aaye na saal ba léegi ndax bu fi xam-xam jugee rek ñu réer ñu mën a ñëw mujj di ko jaamu yàlla yàlla may xam mu moom rek ay gindi nit xaala wax na ibnu abbas wasaarat mu mujj aaji aw saan yi rek xerem alati yi nga xam ne kaana nekkoon na fi xawmi nooyin ci nit nooyin fil arabi ci arab yi baado gannaaw ga xerem yii nekkoon ci nit nooyi gannaaw arab yaa ko yore woon mu ngi woon ci arab yi rek laa wax ñoo mujjee xerem yi ñoom waa kazaan yi xaala ci rawaay kirimatu wa daxaaku ak daxaaku wa xataatatu ak Muhammad bu ni saaq ñoom ñëpp ni lañ firee laay wa qaala wana ibnu jarir ibnu jarir fii tafsir yi ci firem moom ibnu jarir dégg nga muy tafsiru tabari ci la wax ne xadasanaa nettal nañu ibnu xumayd xadasanaa nettal nañu mihran an sufyaan jëlee si sufyaan an muusa jëlee si muusa an muhammad bun qays jëlee si muhammad bun qays qaala mu ne kaanu nekkoon na ñoom wadd ak suwaag yaxuus ak yaxuuq ak nasr xaw di aw nit saalihin yu baax benn aadama wa nuuhu diggante aadama ak kon moom daf ne bokkut ci nit nuuhu yi mais diggante aadama ak nuuhu fa lañ nekkoon wa kaana nekkoon la lawum ñeen leen at baawun ay topp yaqtadoona di roy biim ci ñoom xamoon nañ dégg nga ay taalibe yu leen doon roy kon am taalibe yàgg fi moom ndax ñii di ñoo amoon ay taalibe yu leen roy waaw waaye nag sëriñ mën naa baax taalibe mujj ba sànku ndax rek ba ba xawateeb sëriñ ba fala maa maatoo bañ dee maanaam bañ génne àdduna xaala ci rawaa saabum seeni àndandoor alladina yi nga xam ne kaanoo nekkoon nañ doon di roy biim ci ñoom bañ fi jugee seeni taalibe yeneen loon roy dégg ko ñu nataal maanaam ñu defar leen nataal jël bant rek yetti ko ba mel ni gaañooñu buñ leen defoon loolu kaana dina nekk ashwaqa di gën sopp loola naa ñeel ñu ilee baadara jëm ci jaamu yàlla isa zakar naa buñ leen fàttalikoo suñ defee noonu buñ leen xoolee rek danañ gën a mën a sawar si jaamu yàlla kon teewaay ak sëriñ ci biir taalibeem dana am lu ko jariñ ndax ñii teewaay nit ñu baax ñii taxoon nañu doon gën a sawar si jaamu yàlla de bañ dee sax la leen dugal ci nataal leen mooy di leen fàttaliku rek suñ leen fàttalikoo gën a sawar si jaamu yàlla dégg nga moo tax yonent yëkkatiwuñ seen loxo si suuf bañ koy denc lu may mel lu may xaw nañoo fàtte seen bopp tey lool teewaay yonent seen biir daan na leen jëriñ fa sa waruwum nag ñu daal leen melal fala maa maatoo bañ génn àddina wajaa mu dikk aaxaroona ñeneen dabba royaat na ileem jëm si ñoom iblis iblis iblis dafa dugg seen biir fa xaala mu ne innama kaanoo naka seen bàyyi nekkoon nañ yaa bu doonum di jaamu ñii wa biim ci ñoom mis kaw na la ñuy nandaloo almatara taw buñ soxlaa taw sax ñii la ñuy ñaan yàlla rek ñii la ñuy ñaan rek ñuy wàcc taw faa ba doom doom yi commencé jaamu xërëm yooyu de fekk ay nit ñu baax la ñoon <coughs> ñu defar leen na taal mu di xërëm di leen doom yi ba bàyyi génn àdduna doom yi di ko jaamu bàyyi ñoom li taxoon ñu def ko rek mooy namm leen ak saa ñu leen xoolee seen xel gën a fàttali ko yàlla ñu góorgóorlu waaye doom yaa ñëw di ko jaamu war a waa dettal na ibnu abi hatim doomu abu hatim an Urwata bun Zubayr jële ci Urwa doomu Zubayr an noone moom qaala wax na ne waddun ak yaxuusa ak yamuqa ak suwa ak nasr awlaadu aadama doomi aadama la woon nee na ñii aadama leen juróon su fekkee loolu wér na moom dafay mel ni kon ñoom njëkk yonent yàlla noonu di juddu lañ leen doon jaam dégg nga waaw su ko defee nag kon dafay mel ni diggante yonent yàlla noonu daal ak aadama am na maas yu bon ya nekk waaye daal fukki maas baax moom ma nga moom wóor na wakaana nekkoon na waddu waddu ak di gën a mag ci ñoom wa barum te moo gën a baax bii ci aadama waddu moo ci gënoon a moo gënoon a baax ci baayam wa qaala wana ibnu abi hatim ibnu abi hatim ne hadasana nettal nañu ahmad bun mansour hadasana nettal nañu alhasan bun moussa hadasana nettal nañu yaquba an abil mutahir jëlee ci abu mutahar qaala nee na zakaro tudd nañu abi jaafar jëlee woo moom albaqir moo di abu janfar albaqir woo moom qaayimun aji taxaw la yusalli mu ngay julli waaw abu janfar albaqir mu ngay julli gaa yi tudd bun mu ne fala man fatara ba mu paree min salaati si juleem moom abu qaala ci la wax ne zakartum tudd ngeen yazid bun muhallab tudd ngeen yazid doomu muhallab amaa innoo waaye moom yazid qutila rey fi awli ardin suuf njëkk soo xam ne bi de jaamu nañ fiyaa ci moom xeeru laay lu dul yàlla Yezid moomu ña ngi ko ci suuf su njëkk a jaamu xërëm xaala mu ne zakara tudd waddan wadd ne rajulan góor la musliman boo xam ne julit la woon wakaane nekkoon moom wadd muhabbaban di kuñ bëgg fi xaw mi ci nitam falama maatamam dee askaru samp nañ awra xabri ca la wër bàmmeelam fiar di babil suufu babil maanaam ñoom ñëpp rek ñu nga wër bàmmeel ba nanguñ faa jóge ba wadd dee wajja si woon ñu tiit ale yi ci moom <laughs> jàq lool falamaa raa ba mu gisee iblis iblis jasahum seen ak tiit ale yi ci ka wadd tashabaa ci la niru niru niru nirulu fii surati insaani ci melo doomu aadama ba leen iblis gisee ñu tiit lool ci dee ak wadd gi génn àddina ak wadd ci la mel ni doomu aadama dégg nga su ma xaala mu wax ne inni naka man alaa dana ma gis jazaakum seen ak tiitaange alaa haza ci bile góor faal lakum ndax ñeel na leen an usawira ma melal lakum ñeel leen misloo ko moom mu ne leen gis naa ne jàq ngeen lool ngir war di jugee gi mu fi jugee ndax bëgg ngeen iblis mooy wax ndax bëgg ngeen ma defal leen ko ab nataal bu mel ni moom faa fa na mu nekk moom nataal boobu fi naadikum seen penc yi fa taskurunu ngeen fàttaliku wadd mi rek xaaroo ñu ne ko naam waaw fa sawara mu melal lawum ñe leen mislu ku mel ni wadd bu boo koy xool naan wadd la xaar mu ne woo wadawu ñu teg ko fii naa di seen penc ma ñu daal di ko teg ca penc ma wajaalo ñu commencé escrono di ko fàttaliku falamaa raa ba mu gisee maa biim la nekk ñoom min zikri ci fàttaliku ko ba mu gisee xiir giñ xiir si ñëw di teew ak nga xaala ci ne àllakum ndax ñeel leen an ajaala ma def fi manzili kulli waahidin ci kër kenn ku nekk minum ci minkum ci yéen timsaalan ak nataal misloo bu mel ni moom iblis na ren ndax bëgg ngeen kër gu nekk ma defal ko benn nataal bu mel nii léekoo na ngir mu nekk moom wadd loo ñal ko fi bayti ci këram fatas kuróoloo ngeen mën ko te du ngeen ñëw fii xaalu naam ñu ne ko waaw loolu koy defal xaala mu ne fa masala mu misaal li kulli ahli baytin ñeel waa kër gu nekk timsaalan ak nataal misloo bu mel ni moom faaq baloo ñu commencé nag fa faaq baloo ñu jublu nataal boobu fa jaaxloo ñu commencé yeskuroonu di ko fàttaliku bii ci moom de waaw ñu fàttaliku waaw wadd ci nataal boobu xaala mu ne waad rek mu jot ab naawum seen i doom yi fa ñu commencé raw di gis maes naw na la ñuy liggéey bii ci moom doom yi ñu xam gis nañ li bàyyi def waaw xam nañ ne nag bàyyi jaamuñ ñii waa dañ leen fàttaliku rek ngir gën a sawar ci jaamu yàlla xaala mu ne wa tanaasoro ñu jurante wa darasa mu raaf amru zikri mbiru seen ak waaw jamono ñëw ñu fàttali sax ñii dañoo defaroon këram yii rek ngir fàttaliku fàttaliku nit ñu baax ñooñu ak di leen waaw ak musawar loo leen si jaamu yàlla loolu nit ñi fàttali fàtte ko ba sët ñëwee nag sët sëtaar yi bañ ñëwee waaw ba sët ñëwee daal ñoom gis xërëm rek def ko yàlla xata taxasu bañ jàpp ko ilaan muy yàlla yaabu dunu ñu di ko jaamu min duni laay ba fa yàlla ñu ko jàpp awlaadu awlaadin seen doomi doom ya maanaam sët ya sët moom fàtte nañ ne bàyyeeg maam yi dañu doon fàttaliku nit ñu baax ñii rek waaw waaye mujj nañ di ko jaamu rek laa wax de ndax fàtte nañ la xewoon naka noonu it sëriñ si ñuy fàttaliku fàttaliku ki baax na tagg yi baax na waaye buñ ci ëppal ba def leen yàlla ku leen def yàlla rek fàtte nga lu tax mag ñi fonkoon sëriñ waaw ak daan topp sëriñ ak daan ko tagg def leen yàlla taxutoon ku leen def yàlla fuuti de fa kaana nekkoon awalu maa ubida di li njëkk a jaamu xëy na laay lu dul yàlla waddu moo di wadd waddu moo di xërëm gi njëkk a jaamu asanamu mooy xërëm alladi gi nga xam ne sama wutudee nañ ko wadd wadd moom lañ njëkk a jaamu wa muxtada siyaaqi la ñuy jëlee ci mànga wax ji mooy ana kula sanami na bépp xërëm min haaji ci xërëm yi abadu jaamu na ko taay fatan ab kuréel min naas ci nit ñi xërëm gu nekk rek am na mbooloo mu ko jaamu wadda am na ñu koy jaamu suwaa noonu yaxuus ak yamuqa noonu nasru noonu waxat zukkira tudd nañu ànd wane moom la ma tataawalat guddee alxamudu jamono ya wala boog xew-xewee wala asmaan ak jamono ya jaaloo def nañ tilka suwar yooyu la melo tamaasira ñi nataal mujjasada yu am jëmm ba jamono ya daal ci lañ waaw xelam yooyu def ko mu di aw nataal yu am jëmm léekoo ngi mu nekk asbata di gën a sax laa ñeen ko de maanaam di gën a ngir nit ñooñu sax fa rek bañ faa jógee su moom bi da topp ñu jaamu ko baax de zaalik gannaaw loolu min duuni laay ba fa yàlla xasanoon na ma jëla màgg na wala moom ñeel na leen fi ibaadata ci jaamu ko masaalikun ay yoon kasiratun yu bëri xad zakar naa tudd nañ ko fi kitaab naa suñu téere a tafsir nañ doon jaamoo xiram yooyu daal am na façon jaamu yu bëri tudd nañ ko ci tafsir ba fi ma waa de ci seen i barab de way laa ñeel yàlla alhamdu cant bu minute xewal sabara sax na fi sayaani ci buxaari ak muslim an rasulillah jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam andoo ne moom lama zakarat ba mu tuddee andoo fu mu salama mu salama wa mu habiba ak mu habiba tilkal kanisa boobu la xiram alati ba nga xam ne boobu la église alati bi nga xam ne eh, raay naa gis nañ ko bi àddi xabasa suufu xabasa dañ faa gis iblis église bu rafet yu xaalu ñu wax laa ñel ko maariyatu waa noonu lañ ko tuddee fa zakar naa ñu tudd min min fa zakarata ñu tudd ñoom ñaar muy umu salama ak umu habiba min usniha ci taaru église boobu wa tasawir ak photo fiyaa yi ca nekk ak dessin ya ca nekk xaala mu ne yonentu ne ulaay ko ñooñu la gaay isa maata bu dee fiim ci ñoom arajulu saalihu góor gu baax banaw tabax nañu laa xabri ci bàmmeeram masjidan jàkka su ma sawaru topp ñu melal fii ci moom tilka suwar yooy la melaw ulaay ko ñooñu siraaru xalq ñoo gën a yees ci mbindee fi indi laay fa yàlla anzaloon na ma jëlate màgg la <coughs> yonentu ne ñooñu ñooñu nga xam ne bu nit ku baax génne àddina ñu jël bàmmeel ba def ko jàkka def ci ay nataal ñooñu rek laa wax de wal maqsuud lañ jiwlu mooy anal fasaara naka yàqu gëla man tasara bam tasaaroo fi suuf waa ma mu matalal balaaw nattu bi mu baalil aslaami si jaamukatu xërëm yi fiyaa ci moom bansa ci la yónnee laa weela wa rasul ak yonentam nu waxan nu xale yàlla nekk nu wasalaamu jàmm la nga mën a jëlee ci tënk gi mooy ba su suuf nattu mat nit ñi di jaamu xërëm ci la yàlla yónnee yonent yàlla noo ya doomu yoo tee laa baatil laa jëm ci jaamu yàlla wax doomum dong laa sharika dér bokkaale la woo di ko ñeel waaye naa muy teraane baatati maa si waaw ci lu dul yàlla fakaana nekkoon awala rasulin di njël benn yonentu baasoo yónnu na ko laaw yàlla ñooñ suuf ba jamono yàqoo ci la yàlla yónni yónni ci yàlla noo xeetu yónent bi yàlla defal na leen loolu bu nit ñi demee ba nar a bi yàlla yónni mu jëddit kuy beesal wax nañ ne bopp maas gu nekk yàlla dana ci yoon yónni kuy beesal diine looloo waral bu yonentu waxee loolu rek yow mi bokk ci xeetu yonent bi war ngaa xam ne topp borom xam-xam yi ak ñooñu di beesal diine mënul ñàkk ndax la leen tax a ñëw mooy nit ñi dem nañ ba fàtte yoonu yonent bi askane ko lu bokkut ci moom xaw yoon wu nekkul yoonam jàpp ne foofa yoon wi yàlla yónni ku kuy beesal diine ji mu tegaat leen ci yoon mhm. kon borom xam-xam boobu fam la teg kooku foo nga topp ko rek laa wax <laughs> boo ko toppee yonentu nga topp ndax yonentu moo ne yàlla dana yónni koo xam ne ni day ñëw di beesalaat diine ba mu waxee loolu rek lañ xam ne nit ñi danañ fàtte yoonam danañ ko askanee lu loo xam ne set na ca danañ jaawale mbir mi waaye yàlla dana ni kuy beesal rek mu tegaat nit ñi ci yoon wa kooku tegul la lu may ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam la andi taxamoo ko rek dafa bokk ci li nga xam ne dañ koo fàtte woon rek te muy njubam yonent bi loolu rek la de waaye njubam yonent rek la ñu wëli yàlla yi andil yàlla yàlla rey seen yoon te musal ñu ci yoonu waaw weddikat yi ak saay-saay si nga xam ne teqale xeetu yonantu rek moo leen tax a jóg waaw ci ay lay yu ñu dëgg te dara du ci dëgg waaw comme nu ko yonantu waxee woon waaw dañuy wax wax yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw waaye gëmuñ ci dara rek de jàngal quran romb seen i put yi waaw dàq fee julli dàq fee xoor waaw te nag ñoo gën a yegg ci mbindeef yi loolu la yonent bi melal <laughs> ñooñu nag waaw ku ne xam na ne ku gëmmu sax xam ñen ñooy ñooñu kama safara comme nu mu saxee fi saxiixayni ci Buxaari ak Muslim <coughs> min hadis ibnu Xiyaan an abi Zura jëlee ci abu Zura ibnu Amrin bun Jarir an abi Hurayrata <coughs> jëlee ci abu Hurayrata an nabi mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi hadis shafaa ci hadis ramu mi xaala wax na maanaam lu sax foofu ci hadis boobu mooy ne Nuux moom la yàlla njëkk yónni ci kaw suuf fa yaatuuna danañ dikkal Adama Adama fa yaquluun ñu wax ne yaa Adama yow Adama anta yow abul bashar yaay bàyyi mindeefi xalaxaka bind na la laa yàlla bee di ci loxom wa nafaxa mu wal fii ka ci wamin ruuyi ci ruum wa mu digal al ka naka mu dëkkal aljana te aljana ayaa mu la naa laa rabbi ka jëm sa waram mi tàngee safara ne lakk ñëpp pencam yàlla métti xol yëpp xegg ci puut ndax jàq hmm. nit ñi daw dem ci aadama ne ko yow la bind ak sa loxo wal ci yow ruhum digal malaaka yi ñu si yóotal la may la nga dëkk aljana may wax doo ñu ram mucc sa borom de walaay kuy weddi waasita maanaam wasila sa digganteeg sa borom yomal xiyaamati danga ko nangu rek la wax de ndax bu mbir mi tàngee kenn ñemewutu daw jëm ci borom bi ci jaamam yàlla rek la jëm ngir yaakaar ne moom mën nañoo xettali suñu digganteeg suñu borom de bokkaale nag moom damay wax ne daganul fenn ñuy wax ne tawasul di jottaliku ci nit di ñaan yàlla ne yàlla yàlla nga may ci barkeem nit wax naa ci ba sonn ca burda baag ca fu ne ñee wax ne daganut nee nañ bokkaale la bokkaale nag dama ne du dagan ci àddina du dagan ci àllaaxira àllaaxira daal ñëpp danañ daw dem ci aadama ngir mu ramm leen loolu lan la loolu tawasul la de ñu ngi jot li ko ci moom ndax kenn ñi mutu daw dem ci borom bi jamono boobu ku ko bañ ci àddina yi def ko ci àllaaxira yàlla am na jaam yim tànn yoo xam ne rus na leen de jaar si jaam boobu dégg nga ya ngir yàlla rus la rusee la jaam boobu rek la rek laa wax de alaa tara ma nax nu gisoo maa nax nu fii lañ nekk ñu ne Adama xanaa gisoo lañ nekkee mooma bala xanaa ak la ñuy jot fa yaqulu Adama daal xam ne ne moom du borom maqaam boobu ne rabbi sama borom xad xadiba mer na xadaban mer moo xam ne lam yax dam musul mer xabloo njëkk ko misloo mer gu mel noonu Adama ne yalla yàlla mer na mer moo xam ne musu koo mer wala yax da ta du merati bandoo gannaaw ga misloo ko mer mer mu mel noonu de wana xaanii te tere wan na ma xani si ci lekk garab ga fansaytu ma mooy ba lekk garab ga kooku ñëw ma koo nafsi sama bopp doy na ma nafsi sama bopp doy na ma keroogee ku nekk rek naan nafsi nafsi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mu naan ummati ummati yàlla man sama xeet laa tal sama xeet sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu ko yàlla bëggloo toppaloo ñu yoram bëggloo ñu képp ku ko bëgg te di ko liggéeyal ilaa xëy ci kudul man loolu la Adama wax mhm. Adama na dem leen ci keneen isa bu dem leen ilaa nooxin jëm ci nuuhu Adama moom it yeddu nit ñi ne leen yéen da ngeen di bokkaale yàlla jaam mënul dara yàlla rek a man ñaan leen yàlla rek de Adama waxul leen loolu mhm. Adama xam na ne tawasul mënul ñàkk rek moo tax mooy leen dem leen ci nuux fayaatunu ñu dikkal nuuxan nuuhu fayaqulun ñu ne ko yaa nuuhu e eh yow nuuhu mhm. ante yaa njël benn yonent yi ilaa ahli ardi si ñooñ suuf xola rek jaam nga ne lam gi ci yow moo tax mu fonk la bañ gis kuñ dem rek danañ la tuddal nga ne la la defal yaakaar ne kon war ngaa man ci wa mbir mi dara ñu ne ko yaa njël benn yonentu ci kaw suuf wasa maa ko tuddee ne la laaw yàlla am dan jaam shakuran buy sant yàlla alaa tara manax gisoo yow nooxu ilaa maa nax nu ci da nga xam ne ñun fi ñu ngi ci de xam nga ne ñii jaar nañ ci mbindeef de alaa tara ndax gisoo ilaa maa bala xanaa la ñuy jot mm. xanaa gisoo mbir mi nu méttee alaa tasfa ma yax doo ramm lanaa ñeel ñu ilaa rabbika jëm sa borom xasa noon na wajalla ta màgg na fa yaqulu nuu naan nuuhoog naan rabbi rabbi sama borom xad xadiba mer na yow ma tey mer moo xam ne lam yax da musul mer xabloo njëkk ko misloo mer bu mel noonu wala yax dabu tadu mer baadoo gannaaw ga misloo meroo mel noonu nafsi sama bopp doy na ma nafsi sama bopp doy na ma de noonu la ñuy dem ba ci yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ma man maa ko yeewoo man maa yeewoo xetti leen man seen digganteeg seen borom waaw daal di ñaan yàlla yàlla xatte jaam yi waaw digal ko mu ko ko neex rek waa mu dugg aljana moo tax ku yaakaar ne mbindeef mënul mbindeef dara yaa ngi nax sa bopp laa ndax baram mu amee rek ci ngay xam ne mindeef dana jëriñ mbindeef yomal xiyaamati mm-hmm. te borom xam-xam yi sax danañ rammu yonent yi danañ waaw way dee ci toolu xare danañ rammu xaw ma kuy weddi rammu waaye kuy mën naa xettali mbindeef waaw ba yàlla dugal ko aljana waaye yonent bi moom weddiwul ko mm-hmm. yàlla yàlla musal ci xeeru bon bi nga xam ne bëgg nañoo soppi njubam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te teg ñi ci njubam yonent bi yàlla ñu yàlla ci yoon wëli yàlla yi eh, lañ rëdd yàlla ñu ci yàlla rey de ñi nga xam ne ragal yàlla rek lañ xam ci ñoom ak mbaax ak waaw topp njubam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa zakar tudd na tamaamal hadis yi matali hadis bi tuuli ci guddam maanaam hadis bi lam ci lam la gudd na lool waaye lañ ci bëgg a jàngale mooy nit ñi yomal xiyaamati dañ naan nu yow la yàlla njëkk yónni kon boo jàppee ci wax jooju mooy ne aadama moom ab nabi la rek waaye yónni wuñ ko kama awrada comme nu ko ratale al Buxaari Buxaari fi xisati nu ci histoire nu falama bansa ba ya ba mu yónnee allah yàlla nuuha nuuh alayhi salaam yàlla na jàmm nekk ci moom daawum waxoon na leen ilaa ifraadil ibaadati ci wéetal jaamu yi laay ñeel yàlla wax doo moom dong laa sharika déet xel ak bokkaale loo di ko ñeel wala yaa bu dugguñ jaamu maa waan ak yàlla sana man xewal sana man xërëm wala timsaalam du caageen nataal wala taaxuutam du caageen seytaane nuuh na leen jaamu leen yàlla moom kese bu leen jaamu xërëm bu leen jaamu nataal bu leen jaamu seytaane waan yaa tarifu ak ñu nangu bi wax daaneti ci wéet yàlla waan noo tañ nangu ne lay mbir te mbir laa ilaa amul benn buur bu ñu war a jaamu xeyroo lu dul yàlla wala rabba déet borom si waaw lu dul yàlla de loolu la leen yonent yàlla noonu xoo kama amara comme nu mu allahu yàlla taala kawenam man baadu ñu nekk ci gannaaw nu mi ne rusuli ci yonent yi alladina yi nga xam ne hum ñoom kulluhum ñoom ñëpp min zuriyati ñu ngi bokk si njaboot ak nuuxu mboolem yonent bu ñëw gannaaw ga rek si njaboot ak nuuxu bokk de bal mboolem xeet yëpp ci njaboot ci njaboot ak nuuxu lañ bokk ndax ku bokkul si njabootu nu judduwut gannaaw ga waaw keroog mbënd ma daal ñëpp a dee ñi doom ñoom ñëpp ci njaboot ak lañ bokk de xamaa xaala comme nu waxtaanaa kawe na wa naa def nañ zuriyatoo njaboot ak nu moom ñoomal baaxee ñoo des ci kaw suuf rek laa wax de astaafaatu wa xaala wax na fii ci nu wa fi ibrahima ak ci ibrahima ne wa jaan naa def nañ fi zuriyati seen njaboot a nu bootu yonentu wal kitaab ak téere kon njaboot ak bépp si njabootu Nuux la bokk waaye bépp yonantu gannaaw Ibrahima si njabootu Ibrahima la bokk ay mos na mu kullu nabiin bépp yonantu min baadi Nuux gannaaw Nuux fa min zuriyati muy bokk si njabootu Nuux wa kazaalika ne ko Ibrahima Ibrahima. yonent bu ñëw gën a am rek si njabootam la bokk xaala wax na laa a taala kawe na wala xat baas naa xewal nañ fii kulli ummatin ci bépp xeet rasulan ak yonentu ani abuduna na ngeen jaamal laa yàlla wajtani bu te ngeen teet a taaxuuta seytaane yonentu bu nekk rek waaw yàlla xewal na xeet bu nekk rek yàlla xebal na fa yonentu yonent a ne na ngeen jaamu yàlla te ngeen musee te ngeen moytu seytaane wa xaala wax na mu kaw mi yàlla mu kaw mi nee na was allah man arsalnaa ñu yónni min qablika njëkk la min rusulinaa suñu yonantu ajaal naa ndax def nañ min duni rahmaani lu dul yàlla alihatan ay yàlla yomba doon ñu ñuy jaamu de yàlla ne laajal yonantu yu jiitu ndax mas nañoo am ay yàlla yu fa teg ñu leen di jaamu ba fa yàlla loolu mënu nekk geneen yàlla gu ñuy jaamu dul yàlla ndax ab yonantu mas na cee woote mukk yonantu mos cee woote azuxruf wa qaala taala yàlla mu karam wax na ne wa ma arsalnaa yónni wuñ min qablika njëkk la mais rasulun benn yonent illa nuuxi lu mooy danañ wax yu lay jëm si moom annoon ilaam baam laa ilaamu benn bu ñu war a jaamu ilaa ana lu mooy man fa buduuni jaamu leen ma yàlla nee na yonent bu mu mën a yónni rek la muy wax mooy yàlla rek lañ war a jaamu kon nañ ko jaamu dégg nga loolu ko yàlla di wax yu te loolu rek ci lay wali haasali moo tax xaala wax na nuuhu nuuhu li xaw mi ñeen li tamit ne ubudullah jaamu leen yàlla malakum ñeelu leen min ilaahin ci benn buur xeyru bu dul yàlla inii naka man a xaaf doonam ragal aleykum ci yéen bu ngeen weddee yàlla azaaba yawmin mbugalam bis azimun bi aji métti màgg rek laa wax mu màgg laa ragal mu dal kaw bu ngeen weddee de kooku araaf la wa qaala wax na moom nu ne laa ta'budu bu leen jaamu illa laa lu ma yàlla inni a la yonent yàlla lu mu métti dal kaw wa qaala wax na ne yaa qawmi nit ombudoo jaamu leen alaa yàlla maalakum ñeelu leen min ilaahin ci yàlla xeyroo budul moom afalaa tattaquna ma ndax du ngeen ragal yàlla de jaamu leen yàlla ndax amu leen benn buur bu ngeen war a jaamu lu dul moom kon ragal leen yàlla te jaamu ko waxaala wax na ne yaa qawmi yéen sama nit inni naka man nazirun aji waare laa mubinun ba aji leer waare lakum ñeel leen an yabudu jaamu leen allah yàlla wattaqu topp leen ragal leen ko waate oni topp leen ma yaxfir dana jégal lakum ñeel leen min zunubikum seen bakkaar wa yaaxirkum dana mu yéexe leen ila ajin ba ab diir musamman buñ tudd rek mu door leen a rey ina ajala laa naka dirab yàlla nag isa jaa bu dikkee laa yaaxir duñ ko yéexee la kuntum ñoom nekk ngeen tax na moo di xam lii da ngeen jaamu seen borom de ndax bu ngeen xamoon ne da ngeen dee da ngeen jaamu yàlla xaala war na rabbi sama borom inni nekk man daawtu xaw naa mi sama nit laylan guddi wa nahaaran ak bëccëg falam yazidhum yokkul leen du'aa sama woote illaa firaara lu may daw way nii nag man kullamaa da'awtuhum saa yu ma leen hooyee li taxfira ngir nga jéggal lahum ñee leen jaalu def nañ asaabihum seeni baaraam fi azaanim seeni nopp ngir bañ a dégg la may wax wastaxsaw ñu muuroo siyaabum seeni yére ngir bañ maa gis waasoru ñu nuur seen bakkaar ga ak jaamu xelam ga wastakbaru ñu reyrul istikbaaran ak rëylu su may nii topp man daaw tuum woo naa leen jihaaran ci biral su may ni topp man aalantu feeñal naa ak wooti lawum ñeel leen waasatu yelu naa ak wooti lawum ñeel leen saaran ak yelu fa qultu ma ne istaxfiru jéggul leen rabbakum seen borom innahu nag moom kaana nekk na ko faaran di aji jégalaa yursul dana wàcce asamaan asamaan si aleykum seen midraaran muy ak muy dotteeku taw bi dana wàcce wàcci wam dirkum dana mu tëbb leen bi am waalin ci alal wa baniin ak ay doom wa yàlla dana mu def la lakum ñe leen jinaatin ay tool wa yàlla dana mu def lakum ñe leen anhaaran ay dex maa lakum ana lu ñeen leen laa tarjuun du ngeen yaakaar lillaa ñeen yàlla wa qaaran ak weeg yàlla kaaraange de lu tax du ngeen du ngeen euh, màggal yàlla wek ko waaw barus ko bañ koo mooy ndax mu xaar leen laa wax de waxat xalaqum te yàlla bind na atwaaran ci ay étape yàlla bi ne ngeen jógee si toqam man yu lu mu deret waaw suux waaw defe leen yàpp waaw ak waaw bëti gi nopp ak tànk daal di leen génne waaw ngeen di xale xamu leen dara dem ba may leen kattan ngeen di waxambaane waaw dem ba kanam ngeen di màggat ba dee yàlla mu leen bind si façon bu bind boobu lu tax du ngeen ko wek waaw daal di ko ragal te yaakaar ne moom rek moo leen mën a xaar rek laa wax de waaw maa la ko am lu ñeel leen laatal joon du ngeen yaakaar laa ñeel yàlla waxaar ngeen màggal yàlla de al ayatul karima aayu tedd yi kon laa yi yàlla jàngal na ci ne yonent yàlla nu daan na woon ci wéetal yàlla rek ak jaamu ko su ko defee yi ñëw ñu mottali xoote bi yonent yàlla nu ci aw nitam ak lu ko nit ñi delloo ak fañ mujj insha allah rabbi ba bunt bi di jeex in uridu ila islah mastantu wa tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu